mi ala kulli xaal te ñu fas dikk ci eh, gént lal yi nga xamne mo aju ci lal mo xam nga tedd ci wala nga tedd ci mu lak wala tawer gi dam amna tektal yi am solo yu ci nekk yu mata a xel eh, bala lolou jall ñu jox numéro yi nga xamne inshallah allah rabbi kep ko xamne gënt rek mo yitteem man nga envoyé sa gént ci numéro bi 78 443 75 27 ñi nga xam nag am na leen lu dul gént moo xam seet wala listixaar wala ñu am lu ñu bëgg ku leen ci jàppale wala kulli xaal ñooñu ci leen neexe mën nañoo woote wala ñi nga xam dañu am jafe-jafe ci wàllum tawat moo xam émorite wala ndox siti wala góor gu am jafe-jafe wàllum kàttan ci néegu sëyam la jigéen ji nga xam ne dafa am jafe-jafe sëyl yàgg manta am doom incha allah tarab waral ko nag ñëpp bu leen neexee mën nañoo woote waaye ñi nga xam ne gént rek lañuy laaj képp ñooñ moom jëruñu woote sax ñëw nañu envoyé message vocal directement te buñ envoyé message bind nañ wax directement seeni vocal wax seen soxla wax dëgg yàlla ñu wax seen gént nañ leen ko firi kon alaakulli xaal mën ngeen a jël numéro yi ci lañu envoyé gént 78 443 75 27 numéro yi incha allah rabbi képp koo xam ne am nga gént rek wala nga aajowoo lu jëm ci gént incha allah ci ngay envoyé message vocal comme leneen nag su ko neexee incha allah mën naa woote kon numéro yi 78 la 443 75 27 ala kulli xaal mm, gént laal nga xam ne daa gént ñu jox ko nag na bàyyi xel ne bu doon alal la ju wut dana ci jot bu doon soxna la mu koy sàkku dana ci jot bu doon jigéen la wala góor bu sëy lu yàgg amul doom gént ñu jox ko lal balaa yàgg incha allah rabbi yàlla mën naa dogal soxna mën naa jël ëmb te bu jëlee ëmb mën naa mucc incha allah rabbi ba tey tamit ki nga xam ne daa gént lalam di lakk loolu nekkul lu gën lal bu lakk bu dee góor la day tegtale soxna su wàññeeku bu dee jigéen la day tegtale soxna su boroom kër bu wàññeeku ba tey tamit ki nga xam ne day lisraar soxna gént ñu wan ko lal bu yaatu buñ lal lal bu rafet bu dee soxna la na bàyyi xel na soxna su baax la soxna soo xam ne bu ñëwee dina toog soxna soo xam bu ñëwee dana yaatu ci kër gi lool bu dee jigéen tamit muy wër boroom kër guddi mu toog ñaan yàlla ñu wan ko lal mel noonu na bàyyi xel na boroom këram borom kër bu baax la ba tey tamit ki nga xam ne daa tëdd ci lal moom ak boroom këram wala moom ak soxnaam mel ni am lu dox ci digganteem si ñoom ñaar seen diggante na bàyyi xel ne loolu gàllankoor la ci wàllub sëyam jafe-jafe boo xam ne mu ngi koy dund ci ab sëyam la alaa kulli xaal ba tey tamit ki nga xam ne daa gént tagaram damm loolu tamit na bàyyi xel ne loolu coowal sëy la gàllankoor la boo xam ne day am ci biiru sëyam pour mu bàyyi ci xel baax a baax bu doon koo xam nag ngay wut place wa ilaa nga am looy sàkku gént toog ci kaw lal na nga bàyyi xel ne loolu daraja ji yëkkatiku la bu doon foo nekk ak ay nit nga dem bay jiite leen te balaas ba ngay sàkku incha allahu rabbi yàlla dina dogal nga jot ci ba tey tamit ki nga xam ne daa tëdd cib lal mel ni daa am lu nekk ci gannaawam day dikkal góor day dikkal jigéen bu dee lu bari lu muy am moom na bàyyi xel ne loolu rab moo koy def bu dee jigéen la far rab la bu dee góor la coro rab la ala xaal ba tey tamit ki nga xam ne daa gént gis lal boo xam ne lal bu tuuti la am ay sikk bu doon soxna lay li saxaar gis lal bu mel noonu na bàyyi xel ne soxna su bari ay jafe-jafe la soxna su bari ay gàllankoor soxna su naqaree jëflanteel la ba tey tamit ki nga xam ne daa gént gis lal bu boo xam ne laluñu ko lal bu yaatu la na bàyyi xel na soxna su baax la waaye soxna soo xam ne su aaju defaraat la mooy soxna su aaju waxal la ba tey tamit ki nga xam ne daa toog ci lal ba ci yàgg lal bi rës na bàyyi xel ne loolu gàllankoor la ci ay mbiram bu doon kuy tukki la tukki bi du yomb bu doon ko am lu muy wut wut gi du yomb bu doon ko jiite ay nit ci barab nekk ca kaw loolu day tegtale ak folliku ca mbooloo moom jiite ba tey tamit ki nga xam ne daa gént gis ay lal yu baree bare ci barab loolu day tegtale alal wala wërsëgu yaatu boo xam ne mën na cee jot incha allahu rabbi kon ba tey tamit ki nga xam ne daa gént lal gis lal ba tey tamit day tegtale soxna day tegtale doom incha allahu rabbi kon gént lal tegtal yi am solo waaye tegtal yi nga xam ne yu mata bàyyi xel.